waaw maa ngi leen di remercier vraiment ci seen teewaay di wax nii rek da ngeen ñu fekk fii ci centre sauvegarde ñu doon def benn formation de renforcement de capacité en menuiserie depuis di donc tey la ñuy soog a pare nii loolu yëpp li mu ci jublu mooy li nga xam ne président de la république wax na ko mooy problème mu mobilier national ak consommé local am na ay œuvres yu nga xam ne réalisé nañ ko en du espace de deux jours liggéey nañ ko après di ngeen ko gis mais li ci gën a am solo mooy dañu dégg depuis Dubaï président de la république mu wax ni moom bëggatul gis artisans yi ci mbedd mi ñuy accaparer mbedd mi bëggatul gis daf ñu ngi def déguerpissement de gauche à droite président su waxee lool dama yaakaar bala ngay dindi dara da teg dara. parce que bu ñu xoolee littoral bi nga xamante ne mu ngi nekk fii ak Guédiawaye te président bi muy ñëw fii ñun artisan dañ ko neewoon amatuñu place bu ñu toog liggéey. mu jox instruction à l'époque Boun Abdallah Dionne premier ministre ne ko na xool ministre bi yor wàllu suuf si ñu lijjanti poolam boobu déclassé nañu suuf si mais coow li bari na te ku ne xam na ne géejawaay fi ñu toll nii lii moo ñu dese ci suuf BRT bi jaar na fi indi na jafe-jafe yu bari ci artisan yi ba amatuñu problème bu ñu toog place bu ñu toog liggéey donc littoral bi nga xam ne déclassé nañ ko bëgg nañ vraiment président mu bàyyi ci xel artisan yi parce que nee nañu artisan yi am nañ ci littoral bi six hectares six hectares yooyu la ñu bëgg ñu fexe artisans yi jot ko mën ci am ay centre d'usinage mën a exercer seen savoir fair parce que loolu moo am importance mënoo ne da ngay créer emploi ñi nga xamante ne bi ne am na lu ñu teg da leen war a sécuriser li nga leen di sécuriser wee mooy nga utal leen place bu ñu toog liggéey parce que formation bi nga xamante ne bi ne jot nañ ko def nii ku ne xam na ni ouvrier yi amuñu temps mais bu ñu jëlee une semaine di def formation c'est parce que xam nañu ñun ci lan la ñu nekk te jëlee nañ ci yokkute bu bari bu am solo di remercier de passage suñu professeur monsieur Sadi bi nga xam ne moo ñu ko doon defal di remercier gars yi parce que formation de vingt personnes finalement dix-neuf personnes ñoo ko def du lundi au samedi kon loolu nekk na lu am importance beneen bi ci des ñu ngi remercier président de la république par rapport ak tenue scolaire yi def na ci jéego bu am solo mais dañu bëgg bu déwénee mu mën ci boole cordonnier yi comme ni ñu ko waxee au moins ñu mën a wax consommer local bi muy woote muy wàllu dàll yi ak wàllu saaki mais en plus bourse familiale yi nga xam ne président de la République yëkkati na ko di ko may doomi réew mi dama jàpp ne salon de coiffure yi nga xam ne récupéré nañ leen dugal leen ci projet PEJA bi président de la République war na mën a créer ay bourse de coiffure ci salon yi ñoom ñëpp ñu identifier leen ñu nekk ay petite et moyenne parce que am na force fiscale bu am importance ci biir secteur bi donc tey jii nii force fiscale boobu bu ko président utiliser mën na ko indil lu bari parce que bu ñu xoolee li fi nekk ci ay école publique bu ñu subventionné salon de coiffure yi parce que ñoom ñëpp ñu ci ay jafe-jafe ku daan ubbi salon di fay cinquante mille francs da ngay yuuxu ñëw jël magasin mën la ci fay cent cinquante mille finalement nag ngay def da ngay dem tëj kon président bu fekkee ne dugal na loxoom ci coiffure ci tenue scolaire yi dugal war a dugal loxoom ci maroquinerie bi mooy dàll yi ak saak bu accompagner wee salon yi ci ay bourse de coiffure loolu dina leen mën a dimbali parce que loolu dafa nekk lu am important ci secteur bi beneen bi ci des mooy président de la République na cent mille logements cent mille logements est égal à cent mille ouvrants donc après di ngeen gis porte bi nga xamante ne liggéey nañ ko en deux jours ku ne xam na ne bant bi manqué na te ca kanam la jëm kon tey jii nii am na innovation bu ñu def wane ni tey jii nii defar nañ fi porte bu nga xamante ne boo gisee da nga yaakaar ni bitim réew la jóge te deux jours lañ ko liggéey te boo xoolee moo gën a dëgër bant bi tey jii nii bu fekkee ne président cent mille logements yooyu menuisier mën nañ ci giseen seen bopp soudeur métallique mën nañ ci gis seen bopp aluminium bi mën nañ ci giseen seen waxuma la sax ñu am ci kër yi mais ñu participer ci travaux yi en même temps war ci mën a am cité des artisans parce que loolu demande sociale la te askan bi fi ñu ton nii artisans yi toll nañ fu nga xamante bi dangay ngay dégg cité des fonctionnaires da ngay dégg cité des enseignants da ngay dégg cité douane mais doo dox ba dégg cité des artisans mu nekk lu nga xamante ne bii ne tey jii ni bu fekkee ne comme ni ñu koy faral di waxee artisanat li mu représenté ci secteur bi ba ci projet bi nga xam ne président de la teg na ko fi mu nekk wàllu PEJA mu mën ci def trente milliards pour mën a former trente deux mille apprenants sélectionner huit mille mètres artisans kon xam na lan nekk ci secteur artisanat. mais tamit bu fekkee ne secteur boobu nag gis nga li mu war a mën a créer ci emploi nga utal ko ministère ñu ngi ko ciy remercier de passage di remercier suñu ministre mais ministère boobu président daf ko war a jëmmal dooleel ko parce que ku ne xam na ne l'argent c'est le nerf de la guerre te ministère bi c'est vrai décembre lañ ñu ko jox xëy na ren xaw na jafe-jafe ñu ngi toog di xaar peut-être xëy na am na ci ay liggéey yu mu nekk mais ñu ngi ñaan président de la république mu jéem a def le maximum ba ministère bi mu mën ko jox moyens am solo ba programme yi nga xamante ne bi ne xëy na war na am ci secteur bi ñu mën ko réaliser parce que ñëpp xam nañ ne l' argent c' le nerf de la guerre président mu ngi subventionné pêche président mu ngi subventionné sàmm président mu ngi subventionné agriculture mais mosuñu dox ba gis ñu ne artisanat ñu ngi koy subventionné te jaaduwul il faut ñu bàyyi ci xel parce que développement réew mi mu ngi ci secteur artisanat noo xam nga état dafa wax ne état du créer emploi ñoom loolu la ñu wax. mais bu fekkee ne doo créer emploi am na ñu fi nekk ñu créer emploi ñooñu da leen di sécuriser bala nga laalaat leneen parce que maître artisan yi nga xam ne dañoo jàng seen métier ba mokk ñu wut place di ko fay jël ay xay di leen former ñooñu li ñu soxla mooy renforcement de capacité ak transfert de compétence parce que ñu ngi jël fii nii gars yi di leen daggal bourse ñu dem bitim réew dem jàngi mais pourquoi pas mënuñu jël artisan yi daggal leen bourse ñu dem def seen transfert de compétence ñu mën a solaat lool ci nopp xale yi am na machine yu nga xamante dafay defar cinquante à cent portes par jour mais loolu centre d'usinage yooyu war na fi mën a nekk tey jii nii nga xamante ne bi ne tey jii bu ñu waxee commande publique gars yi mun ñu ko respecté gars yi amuñu problème mu finition artisanat problème mu besoin moo fi am mais du problème mu finition bu ñu waxee délai bi c'est parce que besoin moom moo am li ñu soxla bu ñu ko amee amatuñu problème mu délai lay jóge bitim réew di fi dugg si te naan liggéey bu rafet la loolu machine moo koy defar ñun li ñuy defar fii loxo moo koy defar te soo ko gisee nga yaakaar ne bitim réew la jóge kon ñun duñu moroomu tubaab bi li tubaab bi am suñu ko amoon ñun def lu raw moom li ñuy def mais loolu état moom moo ñu ci mën a accompagner parce que li ñu bëgg xam nañ ko fa ñu jëm xam nañ ko mais ñoom il faut ñu di ñu déglu parce que suñuy mbir la ñu yor ñoom ñoom mënuñu développer secteur artisanal ci signature ay acte ngay poser pour secteur bi dobale fewu te liy développer secteur bi ci ñun la mën a jóge bu dee séminaire la ñun ñoo ko mën a génnee bu dee atelier la ñun ñoo ko mën a génnee mais du da ngay toog sa bureau nga indi sa benn idée nga teg ko finalement fan lay mujjee après ci suuf lay tegu waaw li ma doon wax sànq par rapport ak euh, li waral ñu ñëw fii ci wàllu formation bi nga xamante ne bi ne def nañ ko fii ci centre sauvegarde de Pikine à travers monsieur Sadi notre formateur form formation de 10 jours renforcement de capacité bunt bi la ñu fi jot a defar defar nañ fi bunt bi ak euh, meuble de rangement bi cuisine bi et bunt bi ñu ngi ko defar en deux jours te tey ji boo xoolee bunt yii nii la gars yi di def ci conteneur jële ko bitim réew du ko fi indil kon état war na mën a accompagner secteur artisanal bi ba bunt bii ñu di ko defar fii di ko delloowaat bitim réew parce que ñoom li ñuy indil kopp la ñuy indil te ñun lii nii kon plaqué bi massif la te boo xoolee bunt bi moo ëpp poids ñoom bi ñuy indil depuis bitim réew meuble de cuisine yi nga xam ne tamit ñu ngi koy indi mu nekk wàllu importé boo xoolee mu nekk nii defar nañ ko lép lépp ñoom ñaan ñu ngi ko liggéey ci deux jours et lii tamit ñun war nañ ko mën a defar di ko emballé muy dem bitim réew parce que dañu wax ne consommer local mais dañu war a wax ne consommons ce que nous travaillons travaillons ce que nous consommons parce que loolu moom moo jaadu munoo ne da ngay wax ne consommer local ba pare nag loo soxla nga jëli ko boo demee tey jii si ministère yi lépp loo fa fekk importé la te nga ne danga nga bëgg a développer le secteur artisanal foofu y problème donc toujours dañu wax ni produisons ce que nous consommons consommons ce que nous produisons parce que loolu mooy indi développement au secteur de l'artisanat merci beaucoup